loo ci bañul rek pour am troisième candidature illégale et illégitime duñ duñ ci bañ dara dinañ ci def lu ko raw ngir doo fi am une troisième candidature illégale et illégitime loo ci bañul rek ngir parrainer la mafia foncière dans ce pays ngir parrainer les trafiquants de faux billets comme Bougazeli loo ci bañul rek ñun duñ ko ci bañ ngir dénoncer ko ngir ubbi gëtu askan wi ngir taxaw temm ngir sàmm li nga xam ne moom mooy euh, suñu suñu réew kon dafa mel ni kon réewu senegal mooy réew boo xam ne boo waxee ne dañ ma agressé le cinq 5 mai 2021 ca Nianing ma déposé plante ma waxaat leen ko le 28 mai tey mooy vingt 28 octobre muy cinq mois jour pour jour boo waxee loolu ñu tëj la kaso boo waxee ne convoqué nañ ñu début mois de juin boobu haut euh, commandant bi mu ngi santoon Tine gendarmerie convoqué ñu déglu ñu ñu teg ci fukki fan ñu changé haut commandant de la gendarmerie boobu ak léegi dossier bi avancé wul dara tous boo waxee ne loolu kumba am ndey ak kumba amul ndey la ñu ne la jàpp la ne la ràpp ci kaso et pourtant ana papis waaw am na suñu benn membre bokk FRAPP mu ngi tudd Souleymane Djib y a un mois de cela benn jigéen da ko accusé ne papis da ko dóor déposé certificat médical ñetti fan ñetti auto gendarmerie ñoo jël si Papis këram yóbbu ko gendarmerie bu Wakam heureusement këru Papis dafa am vidéo surveillance vidéo surveillance boobu moo wane ne soxna si lépp lu mu wax dara nekku ci sinon Papis kon tey mu ngi biir kaso Papis bii nga xam ne 5 mai ca Nianing bokk na ci membre FRAPP yi ñu dóor toroxal am certificat médical de cinq jours ba léegi gendarmerie boobu waxul ndax am nañ dëgg am déet gendarmerie boobu jox nañ ko tur numéro téléphone photo vidéo nervi yi nga xam ne ñoo ñu agressé papis boobu ba tey dafa am lu ñuy woowee déni de justice maanaam gendarmerie dafa ne ñoo lànk ñoo bañ duñ la duñu wax yoon papis boobu moom la ñu naroon jàpp y a même pas un mois la même gendarmerie waa léegi ñu ne loolu boo waxee ne ci doxalinu suñuy kuréel dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu ne la tentative de discrédit d'une institution de la République ñu ne la diffusion de fausses nouvelles ban nouvelle li ñu toroxal juróomi membre du FRAPP saaga leen xëpp leen suuf xotti seen yére bi ñu egsee Dakar ñoom ñëpp ñu dem CTO hôpital CTO man certificat médical cinq jours au lieu gendarmerie jéem a teggi tuuma mu traité suñu plainte d'accord Macky sàll jàpp ñu tëj ñu jàpp nag nag loolu nag doy na waar waaye loolu yëpp. du général du général fal président Macky Sall général fal lu tuuti la ci lu ñuy wax général fal lu ñàkk faydale ci lu ñuy wax président Macky mi nga xam ne moom muy buum di bumi muy justice muy gendarmerie muy police muy fu nekk président Macky mooy le seul et unique responsable moom moo jël suñu institution. d'accord mu euh, mu def leen euh, noonu beneen bi mooy ñun askanu Sénégal war nañ jàng ci li passé ne li jamono troisième candidature di gën a jege li mille vingt 2024 di gën di jege Macky Sall di gën a jëfandikoo police gendarmerie ak yoon ngir dal ci kaw ñi nga xam ne jàpp na ne ñooñu. ñoo mun a xajamal cerewam ñooñu ñoo mun a këpp suuf ci cere baakaar bi nga xam ne moom la bëgg a aakimu moom ak ñu mu àndal waaye loolu lu muy tekki itam mooy président Macky Sall daf ñu bëgg tiital ndaxte bu dee gendarmerie du institution c'est un simple corps nga wax ne corps boobu yow président Macky Sall ni nga koy doxalee kumba am ndey ak kumba amul ndey la mu jàpp la xanaa loolu mooy bu ñu waxee président Macky Sall toje toj tëj moom mandargaal saytu bi nam xanaa kon moom mi nga xam ne institution la bu ñuy lim ci constitution Sénégal xanaa kon boobu dañ lay yóbbu Guantanamo donc ñun nañu pare nañu pare ndaxte kon nuñ koy faral di waxee ñun waa FRAPP jooy fajul naxar jooy fajul naxar jooy fajul naxar mooy naam naxarlu bi am na solo naam di publier ci réseaux sociaux yi am na solo naam di bind ci Facebook bi am na solo naam di xawma vocal ci WhatsApp ak ñoom seen ak TikTok ak Instagram am na solo waaye sël la lutte libère wax naa ko ci fi sànq en enseignants yi fi nekkoon fii ci siège FRAPP jël nañ leen bu dul woon xeex full ak fayda kenn du leen jëm moo tax d'ailleurs ñuy lancer un appel à tous les Sénégalais bépp sénégalais bi nga xam ne am nga lu la métti ñu ngi lay noot na nga jóg taxaw bari ñu ngi lay tàllal loxo ñun ñépp nañu ànd def benn say ngir xeex nguuru Bakar bi ngir xeex nguuru Macky Sall bi nga xam ne toje toj tëj moo ko màndargal lii mooy li nga xam ne moom euh, laa bëggoon euh, wax euh, samay mbokk samay mbokk sénégalais yi wax ne kon xeex bi ñu daan xeex ngir li ñëpp bokk ñëpp yam ci xeex bi ñu daan xeex ngir ñu saytu saytuwin bu mucc ayib li nga xam ne mooy suñu alal li nga xam ne mooy suñu Sénégal xeex bi nga xam ne moom lañ daan xeex ngir bañ troisième candidature président Macky Sall ndaxte constitution moo dàq président Macky Sall nekk candidat ñetteel yoon bu euh, bu teglante xeex tey la waalo gën a ay ci xeex boobu ci xeex boobu nag askanu Sénégal mun nañ ci am yaakaar kuréel bu ñuy woowee FRAPP ci xeex boobu askanu Sénégal mën nañ am yaakaar ci ki ñuy woowee Guy Marius waaye nag ah FRAPP moom rek mënul xeex xeex bi mënuñu jël xeex bi dëkkale ko ci yenn mbootaay yeneen sénégalais yi toog di seetaan ndaxte nañu xam ne bu dee tey faatu ci moom lañu dal duudu toog seetaan suba duudu moo ci topp daf may indi ma. Euh, Euh, wane sama solidarité euh, wax sama naxar euh, sama sama naxar sama métit ci li nga xam ne mooy raam liggéeykatu D-Médias démb man la woon